mille 2500 dara xewagul déedéet mën naa yóbbu nday live bi ba 3000 te duma ma wane dara sarab ndayam du ma ko génnee live bi mën naa katt ndayam ba 3000 fii mille mën naa ko faa ndayu yóbbu bala moo mat sax waaye ñaat yow man ba ma commencé léegi ñaata minute la yee yee doomu nday maa ngi ci live bi ñu dajee ci live bi naa la jël après maa ngi ci live bi ñëw ci live man man bokkuma ak ngi jooy naan eh salaamaaleykum gars yi na live bi ma 3000 bu matul duma génnee yor naa dara man damay taal ak sénégalais yi ñëw eh man maay benn personne boo xam ne bu ma nee dame ne nopp yëpp ay taw ko ku safoon day da ngay poñe say day téye ko boo dee saw da ngay sa koy bu dee jigéen nga dangay ngay fas sa lëf ba aadama pare live nga dem day wala nga saw man rek maa ko am Sénégal parce la may doxal la. aw ma morom ci tiktok bi kon kenn du ñëw tiktok bi di ko jéem a manigaase ku ko def fi def ma lekk sa data ndey gisoo fii yi ni muy xanaa xanaa dooleen xool yéen fii yi ni muy xanaa ku si leen dayu lay bi ni muy yéegee yéen ngeen ne yéen moom réew mi yéen tiktok bi ngeen ne yéen a ko kattu data moom yéen xanaa doo leen xool yéen Momar Ndiaye naa ñëw ci yow yow jëru nga may may ay valeur sama waay nga mais naa la wax ay dëgg tey nga dégg ko du ma la dépassé ndax sama nit nga mais déglu li ma lay wax bu baax nga dégg ko Momar naa ñëw ci yow après live bi dafa war a commencé wala ñu kat ndayam ba 4000 personnes bu leen man ndayu tànguloo waay gars yee dafa ndayu tàng waaye eh. amore sono o caldo si apri la finestra dama tàng tëjël abri. tapote leen écran bi mu dayu yëg. gars yi dama ne ngeen tapoter ndeyu écran bi mu yegg cent mille cent mille m sem laa bëgg am ci kaw cent mille tapoter leen ndeyu écran mu yegg cent mille mais gars yi mu egg leen ndeyu cent mille ci sem yi waay sama yaram mën a tàgg waay wala boog bu tapoter leen ndeyu écran bi mu àgg ndeyu cent mille cent mille sem ci kaw mu gaaw man nan quatre mille personnes tapoter leen écran mu yegg cent sama yaram tàng mu gaaw aw ma taa ok jaajëf di ko laayifal def seen coalition ànd ko ak Awus Kité ànd ko ak Kalifon Sall ànd ko ak Momar Ndiaye Momar sama xarit la ànd ko ak ki nga xamante si nii moom mooy ñeneen ñi nekkoon ci kaw dugg ci kaw live bi taal live bi woo Sénégal ne leen da woo da leen di wan awrab Georgie te yarul awrab Georgie ma dugg ci biir live bi ne ko li ngeen di def ji ko góor jigéen la ñu may génneel ay vaar naan ma waaw moo yaa fi doon saaga Dior Dieye mais le passé c'est le passé dama ne joor Dior jigéen ju man góor la barki Serigne Babacar Sy joor Dieye ba muy xeex seen bàyyi yu jógul seen yaay yu juddoogul seen bàjjen yu juddoogul Dior Dieye jamono yi 2016 2017 la moom ak Macky Sall Dior Dieye ak Ousmane Sonko Dior Dieye ak Abdou Diouf Dior Dieye ak Ablaye Wade joor jeeyee Kalifon Sall joor jeeyee Fouta Mata Tampi joor jeeye xam nga la la ko deful indil ko yaayam rek teg ko na yaayam lii la wala ñu ne ko joor lan fekk ci kaw muy def nangam lu ne dañ na ko ci tiktok bi li ñuy yan joor jeey ci tiktok bi ku nu koy yanoon ngay jigéen barke Serigne baaba Sy di nga fanaanee doxat wala ngay yendoo day man munu mën a comprendre man ay góor yu ne leng toog teg benn jigéen di ko sot boobu ba tey ngeen koy sot mu dëgër fit toog di wax lu ñaaw ngeen ne yoral ngeen ko dara te tuunu ndeyam yoru ko dama ne seen coalisation boobu laay boole yéen ñëpp lekk seen data yaay yow soo ko no stress amoo jom soo ko 2006 ba tey nga jaar ci gaal yi sa yaay day jaay say takkaay jaay ay silibom jaay ay istrinam ay sitee ngoosam sa yaay jaay na ay taloom makiyaasam jaay na ko jarafaasam jaay na ko sëba yi yàqam ba jaay silib bu bu bu mu nga jaar ci gaal yi soo ko jaar Maroc jaar Libi ñu katt la katt la Libi ay koy la accompagne jëre la Libi dugal la Espagne ba nga wàccee Espagne ni tubaab yi njëkk a def mooy danoo ŋaayi sa tuun gi xool ko ndax ay sax a ngi cëm déet parce que tamit ah tuun gu yàgg jëli koy foo mën a jaar mu ami sax wala ay mbóot ñu analyse ko ŋaayi sa tuun gi xool ko analyser la xam ne wéroo ñu defal la ay kayitu def nga toog soo ko 2006 ba tey sa yaay mënta am dus bu mu dayee soo ko 2010 ba tey sa yaay munta am dus bu mu jonkone soo ko 2006 ba tey sa yaay ci ay potu waas lay day sa yaay ay si walay teg ci day ca tëgg bala demoon defari ay ay ay ay ay ay potu dayukaay guddi gi bu dee saw potu waas lay jënd ci ñopp teg ca datt ba di ci day 2006 ba tey soo ko looy liggéey Europe soo ko lan ngay kat ndayam di def ndayu Barcelone xoolal sa yaay këram gi ni mu mel peinture bi soo ko boo ko xoolee miir baa ngay jooy peinture baa ngay jooy sa néegu yaay bi mat matelas yi boo ko xoolee da ngay foog ne ay kañaa ci doon fanaan sa yaay fi mu dëkk xool ko pour mu am ndox ay raakool lay samp sa goro yi di ko xëccale naan ko roofal ndox maa ngay génn wuy ma nga sakkal fee wu yaay ma ngay génn wutal mbuus fasal fële yaa tepp sa data yaay xam nga ne toroxal nga sa yaay soko soko sa néegu yaay bi bu ma ko amoon guna élevage laa koy def dugal fa ay cuuj ñuy toccal ma koy jël di jaay parce que rus naa faa dëkkal sama yaay yaa daqaar sa ndey tàppate leen écran bi tey mayee kër yi soko nooy stress yaa lekk sa data ndey xam nga Georgie la gën suba gën la ngoon joor Georgie boo yoree awraam kattal ndeyam ci internet bi nit ñi di gis <coughs> joor man ak moom yem du ragal jor ko jor ko yoroon lëfam fii muy man di keneen jor ñeme naa génn wotal la ko peñeel la ko mu liis tental la ko taalaan laayi fam wane ko ni mu ngi nii fang senegal di gis ki gis na lu ne mais ci dëgg rek pas ay sos ak ay fen dama ne Sokono Express dimbali sa yaay Malick Diop nga tudd tuddoo sa ko noy sees Malick Diop dëkk sa yaraax ku la xool xam ne kaw kaw nga sa yaay ñaaw na ñuul na sa nopp yaay yi comme nopp golo sa yaay tey jii bu demoon parc an golo yi dañ koy xëccoo ak ak ak bukk yi parce que dañu yaakaar ne ci ñoom la bokk buy dugg parc an du ñibbisi yóbbu ko fa boo ko weddee sa yaay bu duggee parc an golo yi duñ ko bàyyi mu dem ndax bokkam yaa koy téye ca ñoom lay des kenn xamul lu muy nurool Soko yaa toj sa lëfal ndey ngeen ne da ngeen di def seen coalition ànd xeex Dior Dieye ak Roqaya maa ngi ñëw ci Roqaya ana Roqaya borom Allemagne Roqaya borom Allemagne mayal leen ma ko ay kër xale bu rafet bi doo emprunté benn jeeg doo wuti wallu Roqaya doo yuuxu naan kay leen dimbali ma Roqaya Jessica la joteel Jessica dem jënd ñoom Sokono SRS ñoom Awus Kiti ñoom Kalifone Sall ñu koy laayifal di ko xas ak di def ay kalaa ku la ci dépassé benn moo ma lekk data ndayam ndox ya nii damay saaf data yaay man gëj naa poñ sa lëf man dama namm pas sa lëf par sa na carnet macinato bu lëf xam ngeen ko fekk data yaayu Sokono SS opéré ndayam jël data bi dugal ko ci machine yi moom moo koy riijal defal ma ko carnet macinato ay yàpp yu ndaw yuy wadd la ma deree sa ndayam taal olio bi teg ci óol dama koo gëj a lekk pas sa lëf ku bañ ma pasal lëf sa data ndey duggal ci Rokhaya Rokhaya defu leen dara jotewul ak yéen dara Jessica bu dee amoo fit mënoo àngu ay tooñ bul dugg yow buñ la yuuxoo nga jooy buñ la yuuxoo nga njaari baat ñett ay waay ah dama dimbali ba commencé ti nan parce que tamit Rokhaya solal la ma lool moom kott bu ubbi bul fa gisee kenn Rokhaya la moo yónni ñoom popet Rokhaya yónni mañankese code faux bi moom la sonal na ma te man defuma ko dara soo ma waree dimbali ci roqaye daal nga dimbali ma ci ma ne la jësi kaa yemal waxoon naa la ko jësi jësi nee naa la amoo fit ba pare di tooñ léegi nag ngeen dem ci ñoom Sokono SRS dem ci ñoom awuskiti dem ci ñoom Kalifon Sàllo ngàngoor googu ñu ne dañ lay saagale roqaya parce que ñoo tooñ roqaya roqaya defu leen dara xamul kan mooy awus kiti lijjantiwul data yaayam lijjantiwul defal ndeyam yoonam newul ci moom xamul ko koy lijjanti xamul sax fu mu dëkk ngeen daal mu saaga ko ndey parce que dafa joteeg Jessica noonu ngeen fi def démb seen live ngeen dugg ci Fouta Ndiaye tampi ne da ngeen di def coalition saaga mama vulgaire parce que Mame Ndiaye Savon message na Jessica Jessica message soko ne ko bàyyil mu sedd mama vulgaire a koy tooñ ngeen ne da ngeen koy saaga ku ci saaga mama vulgaire ma katt sa data yaay mama vulgaire ak maam Ndiaye safoo ba ni ànd groupe yu njëkkee la ma groupe ba maa nekkoon ci biir xamal leen lu leen kenn xamalul xam naa seen démb xam seen tey moo tax seen patron moom du génn ba wax ak man mas génne gis maam Ndiaye safoo fu muy taxaw naan day dagg set ak amul parce que man la boos tey néegéen moom xam na ma man xam naa ko xam naa ma mama vulgaire moom xam na ma dama ne la ku ko ci laal ma katt sa data nday parce que mama vulgaire jotee lu ngeen dara pourquoi ngeen di génne di ko saaga parce que daa joteeg maam Ndiaye Savon ngeen ne da ngeen koy saaga daal ci parce que dañ leen ko wax ku ko ci saaga ma lekk sa data yaay dama ni ku ci laal mama vulgaire laal roqaya joor géey ma katt sa man maa leen ko wax man boos day dégg ni lan ngeen koy saaga fu ngeen teg jël mama vulgaire di ko saaga pour lan pour benn maam Ndiaye Savon fu ngeen ko teg dégg naa leen ngeen ne da ngeen koy commencé saaga parce dafa laal maam Ndiaye Savon jësikaale leen message ku ko ci laal ma doxat sa nopp ndey fu dën sa taatu yaay ngay sa data ndey ba mu yaatu jël écran plat bi rof ko fi ñu fay seetaan coupe d'Afrique gi mat si yëpp seen biir data yaay lañ koy seetaane na ko ci kenn wax dara dama ne la léegi association dooleel jigéen ñi moom la ñuy def ku ci laal roqaya góor gu toog di kalaa jël ay jigéen taf leen di saaga ma lekk sa data yaay man maa ko doon def te loolu bàyyi naa ko maa daan jël jigéen ñi di leen taf di wane seen data yi naan leen minuit pile ñëw leen 22 heures ku ne xam na ne aadama sansa na ndax may daal jàmm keneen ku ko fi def ku dul man ma lekk sa data yaay ku fi jël ay jigéen taf ko di leen saaga ma toj sa nday ndey association xeex dooleel jigéen ñi ku fi wax jigéen no sa ko sudul noonu ñu génn raax sa data ndey jigéen ñëpp nag ndax am na ñoo xam ne dañuy tooñ am na ñoo xam ne moom tekkiwun sarab ndayam mais ñi tekki dara ñi ku leen taf wax leen lu leen war tax ñu lekk seen la fal nday roqee nit ku baax la ku gëm boppam la cagatuwul taxawàlluwul doxul ba tëj sa nit poos fekkuñu ko mu ànd ki góor fekk ñu ko nag mu ànd ak i xam nga lu ma neex ci yow fekk ñu la yow nga ànd ak góor ñu góor ñi di live naan moo fa ñëwoon heure bii heure bii la fa dugg fanaan nan ci lal néeg bi nii la mel jot nan faa naan ban fa naanee nii la demee après ñu ànd dem baali ji jóge foofu dem fee kenn di la ko nettalil araam waxuma laa nga am jëkkër nag dem seeti ay góor tëdd fa ban laa man laa kaa di la dugal ci internet bi kenn mënu ko nettalil koo joteel moo la tooñ dama bëgg ngeen xam ne Sokono SRS awus kite ñeneen ñi ñoom ñoo toñ roqee parce que ñoo koy laay fal di ko saaga parce que Jessica moo leen ko sant moo tax ñu di ko def teguñu ko fenn amulu logique tooñu leen jotewul ak ñoom dara Dior Dieye jotewul ak ñoom dara Dior Dieye li ko soko meree nee na Sokono SRS nee na moom dafa taf doomam man ma taf doomu Dior Dieye Dior Dieye baal ma te moom baalu ko loolu la ko meree parce que bokkuñu mën ak yow man du jàpp mer man chaque jour man ak Georgie dañuy wax message même man daan xuloo man loo ma def rek dama koy fàtte après ñu juboo bokk ndey ak mais doomu xaram nga topp ci Georgie di fen kat sa ndey sa yaay awus kiti moom gars yi rus naa wax ci moom caga Dubaay bi kat naa data yaayam ba bàppa ji génn ne amul ta xarum tabaski yaay ji moom lan bett ak dibiteri mu katt ko ba jër gerasu nag gi roof ko ci lëf li papam bett leen fase ko kooku amuma lu may wax ci moom caga bu tekkiwul data ndeyam caga Dubaay ci commentaire yi mu fees dell commentaire yi laa bëgg gis awus caga Dubaay commentaire yi awus kiti caga Dubaay moom laa bëgg di gis sama yaram mën a tàng caga ci commentaire yi na fees dell très bien merci beaucoup waaye yéen a mën a bind awus dibi waay jaaraama waay barki ras waay maa leen bëgg waay caga Dubaay bu tekkiwul data dayam nekk ci Ousmane Sonko Ousmane Sonko moom awus boo ko waxatee benn baat man maay xëddee sa lëfal nday eh wuyu leen ma yéen ñi bokk ak Ousmane Sonko dama bëgg nag li may wax yéen ko Macky Sall laa àndal Amadou Ba laa bëgg de moom laay jàppale mais awus kiti baat bu mu waxatee Ousmane Sonko dinaa génn peinture data dayam génnee yaayam génnee papaam tafaat leen dëgg ndayam Ousmane Sonko boo ko waxatee benn baat ma lekk sa data yaay nii waaw yéen ñaan ak Ousmane Sonko xoolal bu leen waxatee awus kiti dara toog leen di ma déglu man boos day néegri maa fi kattoon ndayam ba senegal kontaan may ñëwaat tojaan lëfal ndayam ba réew mi bëgg maa leen ko wax awus ca Dubaay ci commentaire yi mu gaaw awus ca nga Dubaay kenn nawloowu ko kenn nawloowu ko ministre yi faalewun ko président xamu ko madame la maire xamu ko kenn xamu ko kenn xamu ko mooy forcé boppam bëgg a dugg APR kenn woowu ko di forcé boppam di wax ci Amadou Ba di forcé boppam di wax ci Macky Sall te ku ne xam na ne man lu ma mënul ci APR ñoom mënuñu ko man laa la wax de man Adama barki Serigne Babacar Si man Adama lu ma mënul ci APR mën koo wax ñu dégg ma awus kiti mënu koo wax amul ku ko nawloo amul kuy wax ak moom amul kuy téléphoné ak moom ku ne xam ne ne kan la caga bu retraite la Sénégal la nekkoon di théâtre ñu di def série canapé ñu koy katt gauche di ko katt droite fu ne lañ ko katt awuskati katt nañ ko ci tuun katt ko ci lëf katt ko ci poqutaan katt ko ci bakkan katt ko ci nopp katt ko ci pooj katt ko ci faar kat ko ci fàmb amul fu koy duggul ci moom xool leen mbàq yaram yi ni mu mel xool leen taat yi ni mu tàcc fu ne la jël ay koy caga bu katt data ndayam la yow yow roqee dalaa nawloo roq yi nekkul duwaay di yaatal gimiñ ginaar yi di day ci taat yi di ko may dara déedéet roq yi warul di jaay boppam roq yi warul di taxawaalu awuskiti demal dimbali sa yaay sa yaay ba ko fi joor jey euh, tëkkoo semaine semaine jàngale jiwul ndeysaan dama ko yërëm parce que yaakaar na ne joor da koy lekk wala da koy rey yéen gàngoor googu yépp mën naa leen a boole xar seen data nday duruweel ma galax ndiku bu ngeen xoolee rek xam ne pom du new yéen a ngi doon live ta fajar ba tey di wax ci benn roq ya wala jóor jeey ci mille personnes man avant may commencé live bi egg naa mille te su ma parewul gars yi fii la ñuy toog xanaa ma pare barki alxuraanu karimi pom du new ku ci laalati nit ma lekk sa data nday mama vulgaire bu ngeen ko saagaa ngir ma maam Njaay Savon ma kat seen ndey lekk seen data yaay doxat seen nopp ndey ngeen laal joor jeey ma fuddan seen taatu ndey ngeen laal ngeen laal ngeen laal roqe ya ma dama dagg seen dambalu baay def ko sarbo si sa jël seen kooyu baay def ko raakolu si juutal seen yaay yépp di ko kat te bu boobaa raakol gi yéen a koy manq muy seen kooyu papa léegi nag damay jël ñoom joor jeey jël gars yi ñu mais bala maa jël dama war a wax ci oustaz Modou Fall léegi damay wax ci Ousmane mo oustaz Modou Fall oustaz Modou Fall nee na dafa dem ci benn ministre ñu toroxal ko parce que dafaa demoon pour sax ba fiir euh, Serigne Bassirou Tall xaw ma Serigne Mounsiir Tall xaw ma Serigne Oliou Tall dama ne damaa bëgg ngeen déglu ma Oustaz Modou Fall ak Oustaz mbay ay yalwaankat lañu dañuy wër ministre yi di leen yalwaan fu ñu dégg ñu ne ministre ñëw na fa dañuy fexe di dem bu ñu demee nag dañu taxawee palaasu ministre de déedéet yàlla la ñuy yóbbaale ak yonent bi bu boobu dem bis ba. mais yóbbuwul fa de déedéet xam nañ ne bis bi ki ko organisé day politique xam nañ ne bis bi ki ko organisé ay ministre lay invité xam nañ ne bis bi ki ko organisé borom xaalis lay woo xam nañ ko bu yàgg bàkki Serigne Babacar Si yalwaan moo leen fa yóbbu bu demee ba colle nag dañuy ñëw nag di xas ministre yi ngeen ànd ci ñoom bu leen nekk dof kii doomu xaraam la oustaz Modou Fall bu mag diine ji da koy falsifier di falsifier suura yàlla yi xadiisu yàlla yi di ci wayaat fii la dem première daam gis ko jox ko xaalis bu bëri Macky Sall gis ko jox ko xaalis bu bëri mu toog ci tele bi di leen gërëm yéen ñëpp gis ngeen ko naan maa ngi gërëm première dame oto bi moo ma ko may jox ma xaalis na ma ubbil daara ma ubbi daara di jàngale pour pourtant xaalis boobu président jox ko wala première dame mais mënoon na ko kat bu ko première dame ne eh xaalis baa ngi nii pour daara ji mu ne ko du ko laal jeunesse baa ngi jooy première dame jeunesse bi amuñu liggéey. première dame ndaw ñaa ngi souffrir première dame xale yaa ngi gaañu première dame ndaw ji ñi ngi xeex pour am seen avenir kon xaalis bi rus naa koo laal te seen yi nekkuñu ci jàmm déedéet Modou Fall dafa encaissé lépp jënd oto bu bees dafax daar am dugal fa ay aleefam ñu koy fay moom mooy lekk xaalis bi du yënde xaalis bu ñu ko joxoon pour mu bi ci daara ji déedéet day fayeeku day jàngale ñu koy fay muy def ci boppam ndax daaraam la moo ko moom xaalis la ko première dame jox mu ubbi ko xaalisama day fayee ko di ko lekk du yéen a koy lekk kon ay doomu xaraam lan bu jógee nag di toog naan ministre bi ñoom ñoo kat ñoom ñoo baaxul man ci dëgg rek lay dox ku may mere mere ma ci dëgg ku may bàyyi bàyyi ma ci ñii ay naafiq lan dañuy yelwaan ñii ñoo yàq diine ji ñoo rusloo diine ji ñoo toroxal lislaam bu njëkk da ngay dégg yàlla nee na yonent bi nee na mais déedéet léegi dañ naan yàlla nee na bu dee yow da am xaalis dañuy jël xadiisu yonent bi nam ko waxee ci borom alal ji déedéet araam ñu waxee ko noonu dañ koy saase dan naan yonent bi kat nee nee la ko waxee jëm ci kële parce que am nga xaalis ay yàlla boo doon pauvre wala doomu baadoo la dañ lay jaxaseeg yonent bi joxasel ak yàlla joxasel ak askan Sénégal bu ko defee dof yi naan jërëjëf ay yaa oustaz dag maa neex fekk yéen xamu leen kii naa fekk la ay dof ngeen yéen barki Serigne Babacar Oustaz mbay kii naa leen indil kaawam benn xale bu jigéen bu mu doon doxaan te jabar ju rafet la yor di doxaan xale bu jigéen gi naan ko xoolal sama leefar yi ni mu neexee xoolal sama leefar yi ni mu sete xoolal ni ma moole mi ngi neex dinaa leen ko indil kaawam loolu spécial la Oustaz bi spécial man Adama maa leen ko dig spécial laa koy teg fii kii spécial waaw ay doomu xaram lañu waaw ay doomu xaram yu mag lañu léegi nag ma dugal gars ñu départ joor jéey fu doomam génnee àdduna nekk ci biiram faatu Momar ñaanaloo ko lixlaas ñaanaloo ko yàlla waxoon ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla mayaat doom bu gën boobu xanaa Momar nga jël photocopie doom ji bi nu ca machine ba nga jël ko yónnee ko Sokono Express mu koy teg di saaga doomu jàmmoor te nga ne yow sa doom ji jarbaatam nga yow ak yaayam yéen a bokk def nga lu ñaaw beneen bi ci tegu momar tey gis naa la laay sokkanoo Sokono stress nga ubbi sa message yi yow ak Dior Dieye ne Dior Dieye da doon ñaan vingt euros mais loolu yow la ak Dior Dieye bu la dee ñaan vingt euros yow la ak moom yéen ñaara ko séq fii ku nekk day def day am problème di ñaan nit mais Momar nan nga mënee jëlee message yooyu di ko wane ci live nan nga mën a jëlee photo sa photo jarbaat koo xam ne yaa nekk nijaayam yaa bokk ak yaayam yaa bokk ak ay maamam nga jël photoom foo xam ne nii dafa dee génn àdduna sa jarbaat bu dee génn àdduna waroo ñaanaloo ko waxoo ci moom lu baax nga jël photo bi di ko yónnee ay noonu joor jeey pour ñu koy taf di nga doomam ji nekk àllaaxira Momar nga yaakaar ne loolu ndam la Momar nga lëkkaloog saytaane lëkkaloog ñu bon lëkkaloog ñu baaxul Momar loolu est-ce que war na la jël ay ojo yoo xam ne nii sa diggante la yow ak Dior Dieye nga di ko divulguer di ko paas soko ku ne di live yaa ngi dégg ngay yàq sa mbokk Momar di yàq koo bokkal Momar di yàq sa deret lan moo tax ngay def loolu ak lan moo ko fi jar def nga lu ñaaw. ok du la mere ci dara nag. d'accord sama way nga sama xarit nga dara du ko dindi. mais wax naa leen la bàyyil Sokono SRS. d'accord Ado ay nit ñu baax. baaxuñu Momar man yaakaaroon naa bu ma la waxee sax di nga dégg. nga. samay respect léegi bàyyi ko ci leneen ak la neex. pare nga. Adamo dañoo bokk Serigne Babacar Sy. lolo dëgg la. te bu ma la waxee ne la dafa am loo dama koo gëm. xam nga nit di ko dégg muy wax nii rek mais doo xam moom mooy kan waaw ah. Adamo te laa lay wax ci Serigne Babacar Sy bi nga xam te ni moom lay waatee te ki nga xam ni mooy sama caat Serigne Babacar Sy laa ko tuddee Adamo est-ce que xam nga ne euh, allahumma salli wa sallim ala ayni rahmati basaatan tuwaari funaa biha iyaaw may ma rek Momar bàyyil ma ay yonent bi non may ma non may ma may ma ma ñëw may ma ma ñëw damay ñëw damay dama la expliqué xam nga bi ngay wax léegi yow soo waxee kon waa léegi laa bëggul fii bëgguma fi aaya bëgguma fi alxuraan sama live la respecté loolu ñëwal ci cas bi directement suura yàlla alxuraan yi boo ko gëmoon doo def wax nga def ak doomu jàmbur bi laay ñëw ci cas bi laay ñëw ci cas bi may indil benn ok d'accord léegi waaw ok ok d'accord léegi man gëmuma ko dul Serigne Babacar Euh, gëw ma lu dul jawratul kamaal waaw allahuma salli wa sallim ma lay wax nii ba salatan tu enri fu naa biha iyaaw fukki per ya ñaar yi ko boo ko yaa am sañ-sañu toog na yow yaa jàkkaarloo ak yonent bi mu nekk lu am solo ci doomu aadama sama martaba ñu may saaga ay ndey di ma wax lu ne mais sama martaba te bu ma duggee àjjuma ci jàkka su ma génnee huit heures laay génn ci ngoon. waaw léegi na xaar ma ci suuf ba nga génn ci jàkka ji Georgie développé la. wooy Adamo ziar naa leen yéen ñëpp maa ngi ziar sénégalais vraiment ma plus maa ngi lay ziar déjà kii wàcc ni bëgguma fi woon sax toog ak moom ndax par respect comme yaa ma yéegal ma toog sénégalais comme li ñuy wax rek dañoo ne paaka bi lay rendi sa mbokk moo koy daas jox sa noonu kii ba may xam 2016 Adamo nañu waxante dëgg 2016 ba 2024 sama cousine ne ma joo da nga war a bàyyi heure boo nekkee ci néegu sëy di xataraay yow xam nga ne Adamo man gaynde laa ndax jote naa fi ak ay nit tey ñu toog tey sol la wax sa nopp loo xam ne tey jii du dëgg te yow dem nga ba gisal nga sa bopp ñii li ñuy wax yépp ay fen la Adamo dañu waxante dëgg tey nga nekk yow sama mbokk tey yow avant may xam ne sama mbokk nga jël war naa la jëlaat après jël nga sama photo di ma taf fu ne di wane ne joor sama sista la kenn du ko laaj fee tiktok bi ñépp a gis ne diw mii daa ñëw jël joor def ko sëram aada moom bu loolu dul mbokk sax man war naa am problème ñëw ne la ah dama am problème ak sama jëkkër loo ma ciy conseil waaw wala déet am naa ci droit. waaw d'accord léegi yow rawatina. dafa mel ne di di tagg tagg la yow nga wooma ne ma joor kii ñuy tagg sama maam la ma ne la du sa maam sama maam la sama yaay wax ak yow ba mboq feeñ muy lan sama yaay ki ko nàmpal yaayam yéen di ay mboq ngeen di ay mboq ngay mboq sama yaay ne ma sama yaay ne ma comme man de dem naa ba gis ne am nga mbokk ba am frère ci TikTok bi alhamdulilah Momar Ndiaye dénk naa la joor Adamo yow tey ma feebar nekk ci ay problème yow nga nekk ak man war maa defal léegi Adamo yow jigéen ñëppay sëy di am problème ak seen jëkkër mer ne bëggatuñu dañuy tas loolu ñëpp la léegi yow jël nga sama doom bi décédé yow lan moo tax nga génnee ko parce que ñëw nga di ma wax yenn yi ma ci ànd ak yow nga nekk di ma menacer si suuf gi commencé ay détails yu ñàkk a fayda ay dama koy doxaan Adamo yow xam nga ma bu baax a baax a baax man benn fan sax bu ma ko amee àddina ñëpp a koy xam rawatina ak ma am jëkkër yow yaa ngi naan nit ki da ngeen doon génn te yow man ak yow fin novembre la ñu commencé wax te fin novembre bi ñu commencé wax dama nekk en état Adamo kon kooku kañ laa génn ak moom kañ. te ba ma paree mm. ba ma ba ba sama doom bi génnee àddina moom ci boppam ci audio yi ma yi Poupette di teg nee na maa ngi lay woo di la jege si nga may daw comme bëggoo wax ak man nag dinaa la ko yombalal mais yàq bi ñu def nii coalition bii ñu ne dañ may yàq laa xamul. Adamo dama lay wan xam nga woo nga ma appel vidéo sànq ma wan la service bi léegi dama lay wan gis nga man euh, man bu ngeen ma bëggee yàq da ngeen di sonn parce que man yàlla moo a baaxal ba pare Adamo da ngay xool service bi ñoom ñuy wax. xama fomp sama vitrine téléphone bi te sénégalais yéen laa bëgg ngeen capturé awa dibi awa dibi xaaral Adamo vidéo biñ la wan xool leen serviette bi nga xam ne moom la ñuy wax laa woddoo Adamo sànq serviette bi nii laa la ko wane wala wane ma la ko nii bu orange la nii nga ma ko wane daa ko lii Adamo boo ko gisee lii boo ko gisee di nga ne lii ñaata la fi def lii waaw ay doomu xaram lan lii serviette bu bees la wala serviette bu yàgg yàgg na loolu war naa def merci beaucoup kon ça veut dire ci biir wax ji soko nee na ki nga doon waxal appel vidéo benn jigéen nga doon waxal appel vidéo te da ngaa xuloog moom te benn jigéen laa xulool man ci réseaux sociaux te ñëpp xam nañ ko mooy moment bi ma amee problème ak Aboubakary te kooku kese laa sekk di waxtaanal di diw parce que sama yaay daf may jox diw nit ñi bëgg xam ban diw la te kooku du ay xarit sœur la tamit kooku parce que gis nga moo tax ma ne nit ñi la gën a jege tey ñoom bu gën a doon ñu toj yàq la kooku doo indi fatam ñu toj la fal ndey moom it xam nga lan moo tax dafa am loo xam ne dafa dafa garaaw <laughs> ay waay ma c'est que man meluma comme ñoom Adamo wër na Seydina Mouhamed yii ñuy coalition ngeen di def nii man mënuñu ma yàq te jigéen la Charlie Toba ma dugal coalition Adamo Charlie Toba Adamo nañu waxat dëgg Charlie Toba Facebook la ma xamee musul am accès wax ak man yow 2021 bi bu ñëwee di wax ak man ci Miss Dior la woon te moment boobu mi ngi ma fekk maa ngi doon génn ki nekk Brésil te kooku dama ko doon taf ñëpp di ko gis léegi yow Charlie Toba nga ne yow danga ma doon doxaan te yow danga ma woo pour Miss Dior nga ne naa la yàqal Miss Dior ma xuloo ci ak yow Miss Dior bu dee kuy wax dëgg dina génn taxaw moment yooyu maa doon wax ak Miss Dior muy jooy guddeeg bëccëg waa léegi yow Adamo góor naka lay ñëwee yor vidéo ex gelam ne da koy yàq yow nga génn xeexle ko yow nga bañ loolu ba pare dem di génn xale bu góor bi nañ waxante dëgg seeni fen amul harmonie bàyyi leen sos ak yàq man munu leen maa déstabiliser Khalifa Sall yow non bugguma saaga ci laay bu jàmbur man dama lay di wax. Khalifa Sall yaa ngi France maa ngi France Khalifa Sall mën nga ko wax lu la neex. <laughs> non non wuy ma ñëw ñëw ah. yow boo bëggee seen ndey yow dan laa tooñ. waaye c'est ay doomi xaram lañu ko ay góor jigéen ñu toog seen topp ndey yéen ñëpp da ngeen maa nopp seen problème mooy yéen ñi àndandoonu yéen ñëpp da ngeen maa nopp loolu mooy seen problème Maman Ndiaye yow sa problème la lenn la mooy doo jubóog sa jëkkër vingt euros yooyu ngay wax Poupette moo toog ci live ne ma man Ndiaye dafa nay day nekk di baatale nit ñi ma ne ko ay mo ne ko Poupette bàyyi li ngay wax bu ma deme mu ne ma demal nga xool demal nga laaj ko te Poupette toog na ci live wax ko yéen noon na si kenn génnee rek un euro bu ma mës a wax bu ma mës a may yéen ñooñu noonu génnee leen ko. Soko ngi demandé Soko. kattal sa data nday nga dem si sa live. na ñaf ndayam dem taali plateau kattal sa tuunu nday nga génn mi ngi di demandé. du ma toog ak ci plateau yow soko da nga toog sànq di bàqu naan tapote leen waa parce que vu ngay wër li nga bëgg mooy ma taf la li ma jubóog aadamoo moo la metti te wax nga ko adduna du neex ba ma juboo ak yow man ak yow du riñ juboo ma ak yéen man bokkuma ak yéen seen xol day metti ngeen may gis may maquillage yu di aj ay bët jigéen ñi ngeen àndal riitu yow kenn xamul looy nuroon awa dibi yow sa ndey ba ba ma tëkkoo sa yaay génnoon une semaine demul école lu ngeen bëgg saaga leen defal ndeyam xoolal une semaine demul école ak a ñàkk jom xam ngeen ay góor bu ngeen demee ba dajaloo ay góor ci benn jigéen ci benn jigéen war nañu xoolaat est-ce que yéen vous êtes vraiment viril vous êtes vraiment viril yow Mama Ndiaye yow. xoolal ngi nii gis nga ko xoolal xoolal Soko Espagne gis nga ko Soko Espagne mi ngi nii mooy demandé. yow bàyyi ma boobu ko cott ndayam bi waaw. yéen ak lu ma leen mën a def tey ah, da ngeen a wàcc da ngeen a waye parce que pro seen problème data data data data data data yéen luy data xanaa génnewu leen ci data. ah ah yéen xanaa génnewu leen ci data. yéen xanaa amu leen ay jabar ñu leen di katta xanaa amu leen ay sœur ñu yor ay data comme ñun. ko kay dafa war a wutali yaayam dus bu mu dayee. yéen ba nga génnee xonqal si xonqal lañ génnee ci xonqal. ah doome xacc ngeen ne léegi rokkee baatare ma rek. a ah, yéen jël seen lafal nday ñoom ñëpp maa moom live bi. mais c'est quoi votre problème. yéen seen problème mooy mënu leen gis bu dëgër. sogo yaa ngi may dégg jigéen ñoo xam ne dañuy yëg seen live bi. live bi neex na trop. dama ne la boo ma woowatee laa wax naa jël appel bi ñi ko defar ñi ko transféré fii lii fa mu jógee ña ko liggéey appel bi ba mu yegg sa ci man sinuwaa yaag ña déclenché appel beeg ni mu sonné. sonné numéro yi bu ko fàtte aada numéro yi. boo ma woowaatee soo ko naat doxat sa nopp ndey fu doon sa taatu yaay karole sa tuunu nday jël téléphone bi rof ko sa data ndey mu doon sonatel woowaat na loolu laay wax yéen léegi Adamo man dama leen di défier ci live bu Adamo parce que nee naa leen Adamo mooy seen bàyyi te man lu ma Adamo mënul génneel yéen du ngeen ko génnee ci man seen diggu data nday yéen ñooñu ñëpp yéen jour def ko def coalition seen caapa nday Kalifone Sall dama la défier yaa toog ci live bu Momar Ndiaye nga ne sam sa mag daa signé benn papier police nee na fu ma gis daf may ko sama numéro jox ko sama numéro mu woo ma ma jox ko sama adresse mu ñëw ma toj sa data nday sulli wax sa baay baabali sàll mu katta ndayam solaat ay botam dem jaayi ndayu guro château rouge man awma lu may teg ci yéen muy eh. yow a Mamar Ndiayo Charlie Towo seen gang boobu seen diggu data nday lu waay am kat leen seen nday ngeen ñëw jox ko seen baay aadama kaako kaa ah, ko wala ngeen xamu leen ma seen bu dee leer na tey na ñëw ma teg ko ñëw leen ngeen kat eh, maa ngi ni ku am sama lomotif eh ku am sama lomotif tojal sa data nday nga jox ko aadama mu ñëw kaa ko xoolal soo ko dafa traumatisé xoolal soo ko daa traumatisé mi ngi woote rek xoolal mi ngi mi ngi rek leen metti leen na la li leen metti leen na la xoolal fi mu nekk nii maay seen nday bës bi ñoo ko tëye ñun jigéen ñi te cottu ndayam duñ leen ko jox li aadamoo wax mooy am coalition ànd ñu dee sogo bu duggul dee mi ngi woote rek <laughs> du dugg <laughs> dafa na dem katta ndayam taal laay bam du dugg sama <laughs> koy seetaan di du muy taale laay bam yow saaga na nga ba sot voilà coalition jigéen ñi ànd ñun ñii coalition. sooko eh, doo ku yegg ñaw eh, ku man moom Adamo yow xam nga ma man soxla ma kenn ku ma xeexal. déedéet man soxla ñoom ma toj seen data nday te ku ci am fit ka taal nday nga dëggal sa nga taxaw ne ma jooree sama adresse Italie mi ngi nii. Eh, dilo am naa sa adresse am naa dilo dilo de xolal ñaata adresse laa ko jox ni ko ñëwal fekk ma fa dilo. dilo xolal dama ka booleeg ay nit ñoo xam ne moom dama bëgg maanaam man fi may dem ci Paris yëpp barki Serigne Babacar si ay. man soxla ma ko wala ñoom ñëpp dama barki eh, alxuraanul karim fépp fu may dem ci Paris damay vidéo non li ma metti nangam day ñëw wala président nangam xool ma dem du ma fa fekk diloo ay Pape Diouf ak yëpp man diloo laa soxla diloo ana nga man li ma ci li ma metti mooy ay góor yàlla ngeen ne vous êtes des hommes benn jigéen taxaw di leen laaj ndayu seen adresse kattu leen ndayam am fitu woo jigéen bi te yow ngeen sama numéro kattu leen seen data nday ku ci yéen ñëpp am ngeen sama numéro toj leen seen caapa nday ngeen yónnee ma ndayu adresse même message même bu ngeen ma woowul barki Nabil Moustapha ku leen dul fekk seen fi ngeen nekk toj seen saram ndayu lu ma leen wax du ngeen ko gëm eh man j'ai pas besoin ay plainte ay police de soxlaw ma ko soko yow moom toogal di ma xaar. mën na soko ngi woote rek soko mais yow soko sonn na de yow soko du la seetaan yow ñi ngi toj sa lëfal nday di saaga sa nday ngay seetaan man duma ko seetaan soo ko li la metti sa àddina maa la ko teg maa dem tabaxal sa yaay duus kattan ndayam wan senegal yépp kii tué télé bi nekk sa néegu yaay da nga koo buuju tàqul épouse sa yaay bi léegi ma changé ko yàggatul parce que ma eh, may jox information waxtaan Momar Salvini Momar Salvini jërul woote yow naa la jël jërul woote di nga dugg te da nga dugg yow tee rek voilà man aw ma lu may wax ak yéen ay góor jigéen ngeen vous vous avez raté votre vie léegi rox rox su léegi yow jëlal sa part si caga Dubaay bi ñëwaatal si ñoom. waa Adisco maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp mu ngi noonu man daal. Euh,